Mustafa santal amul ku lay werante te ka ci Mustafa Seex Mustafa santal dayab cant yaa fi gën amul ku lay werante te ka ci Mustafa bokki taalibe yi sëriñ baa ngi nuyoo di wax asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu Cheikh Mouhamadou Moustapha. Cheikh Mouhamadou Moustapha. jëwriñ jii di Cheikh Mouhamadou Falilou. jëwriñi Serigne Modou Aminta Fall. tànk yi ko tax a mooy. bis bii ñëpp bokk. ñëpp bokk. lu ñëpp bokk moom ku nekk am nga ci wàll. ka yittewul nee na ka yittewoo wàllam nag. ka yittewoowul. ka yittewoowul wàllam. ba jëlu ko. kooka moo xam. waaye sëriñ Falilou yi yittewoo na wàllam wii. mooy lii ko tax a jug. siyaare ci ci bis bi bis bu tedd bii nga xam ni. lépp a ko bokk. lépp ko bokk. Ah, nee na ñun murid yi. sunu xel yi nan ko tàllal. sunu xel yi nan ko tàllal. buñ ko wudd rek. buñ wudd sunu xel yi. nan bàyyi. nan bàyyi sunu xel yi. muy xalaat lu jëm xalaat lu jëm ci sëriñ bi. bokk na ci nee na bokk na ci loolu. kii toog kii toog. di Cheikh Mamadou Moustapha. ma ma ma ngi daw mi ngi ni daw ci biir wax jii muy wax. ni nee na ni mu jàppee. bari na koo bari na koo xam ni. fa nga nekk. fa nga te nekk ca kanam mbooloo ma. te nekk ca kanam mbooloo ma. doxiinu Cheikh Moustapha wii tax na. nga doxe noonee ca nga doxe noonee nga doxe ca mbooloo moomee. nee na ku ñëw ba fekk ko fii mu toog. xool ko. nee na Cheikh Moustapha du tas sa yaakaar. waaye dalay lay mënoo ñëpp leen bett. nee na. ma ko bëgg mhm. nee na ku dox ba egsi. faaw boo xoolee Cheikh Moustapha am lu la bett. ndax bu doon saa yi rek la. fom lay séenoo. fa lay séenoo. du la fa fekk mbàkke. waaye da ngaa xam ni. yëfi jàmbur nga yor rek. yor yëfi jàmbur nag. yor yëfi jàmbur nag. deesu ko puukare woo. nee moo dal Cheikh Moustapha mi toog. nee na mbooloo mi fi nekk. nee na doonul ci ñoom dara. nee di leen womal rek. teg loxol kilifaam. yaa Ahmadu li Muhammadin yawmal qiyaam sant leen sunu waaji waay Cheikh Moustapha yaa neex a dal nga xel. wa man nga ruy fi yëggu leen jébbal sa baay wa man nga gumbayee boo la fa ñuy tegel fanoo góor ak jigéen di jox ay càngaay ku la daw nga dab ku la fay nga fay lii te doonu fay mboolem jirim yeeg baay yaay seeni baay yaay jenn waay yaa Bamba yoraale moo tax yilib nga ba jàll saalum jàll xaay yaa xam teraa ngay waa kajoor ak waa bawal yaa yor sagu buuri fi daa bi am lambaay wa man nga naar wa mat wolof kenn réeratul yaa tiitari baa dooleeg ñi di sant njaay yaa mustafa nil mustafa nil mustafa yawmal qiyaamati rang leen fu ay midaay miskin ya daa jooy Seyxu Bamba ci wam sesin sa rongo seen rongo yi yaa mat la xaay mag jàkkatul ndaw tiitatul réew mépp a bég ngir mos lu ka di mosal nga leen yaa bi sa baay yaa tee jàngub lislaam ñu sàqi ka bax daaw yaa jéenu rëy yaa tee murit seen mbaar manaay yaa boole galli boole car yépp car antal ximaadu li ahlinaa yaa am wilaay